léegi nak ñi ngi dugg ci buntu bi nga bu ama am solo la ta moy buntu bo xam ne fay jangalé nu ñu janaba mu nek lo lu ama am solo la wax ne tamit ña ñana wara sangu sangayel janaba eh, ak kañ la lay wara mëna gar nga dor di sangu sanggael janaba Legi dal ci shariatul islamiyya sangaay yi nek ci bir sharia ñetti xaj la dafa ci am sangay bo xamne ci bir sharia sunna la am ci sangay bo xamne dañ ko sopp am ci sangay bo xamne dafa war bu war nak foko ko moy bo xamne boko baxé da ngay xam bakkar buñ sopp foko ko moy bo xamne boko défé mo gën mais boko bayé won timit do ci xam ben bakkar buy sunna bi nak moy bo xamne boko défé xam yool bu bari dundal sunna su yonantu bi sallallahu alayhi wasallam sallam te yonantu bi neena na képp kuy dundal sama sunna dana la boole ci ñamay rammu ëllëg ci yowmal qiyaama su ko defee nag soo ko bàyyee yaay ñi nga xam ne yaa ngi rey sunna léegi nag ñetti xeetu sangaay yooyu moo am ci shariatul islamiya boo calculer nag ci yi ñu war a sangu yépp yu sunna yaag yuñ sopp yaag maanaam yu yu farata yi nga xam ne dafa war yépp boo ko calculer na la yóbbu ci fukki cangaay ak juróom benn léegi nag sangu mi nga xam ne mooy sangum sunna bokk na ci sangum aljuma maanaam bu aljuma jotee bala nga dem sa jumaa dañoo bëggoon nga sangu sangu mooma nag ñaar moo ko yàq boo ko xasee sangu ba pare lekkati fa mooy añ sangu ma yàqu na boo fa añu tamit te lekk fa lu xaw a bëri ne damay mosaale mosaale ga xaw a bëri suba sangu ma moom yàqu na naka noonu boo ko xasee sangu ba pare Timi nelaw fa yàqu kon liñ bëgg ci sangaayal juma soo ko xasee sangu rek bu fa defaat dudul dul soo ko dem ca juma ja ba ca tegu moo ca sunna ya mooy sangaayal xarmal kuy dem màkka bo bàyyeeko madinatul munawara def manam ziyaara sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam. bo demi ba ci fi ñu tuddee biiru àlli foofa nag la ñuy war a wàccee ñun ñu Sanggomo sénégal bu ko defé fofa lañuy xarmalé sangu moma ñuy sangu sangu moma sangoom sunna la euh, mom timi yu bari la mu dess nag bu dé sangu yuñ sopp yi timit yu bari la bokku na ci manam sangum korité bisu korité ak manam bisu tabaski ak sangu bisab arafa yu mel nonu yoyu ci sangaay yuñ sopp yi ci la bokku bu dé sangu yi nga xam nak mom dafa nek di lu war obligatoire la mënul ñak koku juróomi sangay la waye juróom ya nak ñent yeb borom xam-xam yi nyine nañ ca juróomeel ba lañ wuutee ñi né ci la bokku ñi né bokku ca euh, ba ci ñëk moy ku am janaba war nga sangu ñaarel ba ku yoré manam deretu regal ba mu dog war nga sangu ñettel ba ku yoré won deretu njurel am doom yalla dogal deret ja dog koku timit war nga sangu ñentel ba ku dugg ci l'islam nekkon ab yéfer bu xasse tuub koku warna sangu ñaar nak man na man na sangu ba pare dooro tup mën naa tuub ba pare tamit door a sangu waaye Cheikh Khalil nee na su fekkoon ne dafa sangu ba pare euh, yàlla dogal mu bëggoon a tuub sangu ba pare ba dara desulu duñ ñëw war a tuub rek far mu dee su boobaa moom du tax ñu jàpp na jullit la duñ ko sang duñ ko sang duñ ko jullee duñ ko suul ci xarmeelu jullit ñi dañ koy bàyyi ak mbokki yéeféeram yi ñu defal ko loolu lépp su boobaa nag loolu moom ci ñun ci saahir lañ mën a atte mu des nag diggante moom ak yàlla ci xol bi nga xam ne amee woon na ko ca pour ngir ñëw def si ko waaye ci ci zahir moom li ñu àtte loolu lañ koy mën a àtte lu dul ñu ne mu nekk koo xam ne dafa nekk muuma mënul wax dafa ne dafa bëgg a tuub ñu nekk kon da ngay dem sangu mu dem sangu ci bay ñëw far dee su boobaa moom bu ñëwoon tamit du mën a tudd baatu seede bi su boobaa kooku moom dañ ko sang dañ ko sang dañ ko jullee dañ ko suul tamit ci armeelu lu jullit ñi mais bu nekkee ku mën a wax tant que tuddagul baatu seede bi rek duñ ko mën a continuer moom jullit la euh, bu kon nag sangu tuub mën na tuub tamit sangu mën na naa nag li gën a gaaw mooy rek fexe mu gaaw tuub door a dem sangu ji ba ndax dee moom dafay bette moom moomu nag buy sangu dañ ko koy jàngal ci biti balaa dugg ca biir wanag wa wan ko ne ko booy sangu da njëkkee raxas say loxo euh, xobbeeku li ko dolee sa jumba ba ci bët woom dañ ci yegg si jàngal ko ko ba mu leer su fekkee ku naqari xel la ben way day nek ci biti mom mu nek ci bir mu koy wone ne ko raxasal sa loxoy mu ne ko parena mu ne ko legi timit jëleel sa jumbax ba ci say bëdoo mu ne parena diko ko defal par ben ben ba mu jeex waye nak bala dem di xol di xol awram lol nak mom ko na fekk mu raxas leppam ba nëbbu la ca dess mu dor diko ki kon nak yoyu xol awra likoy war day fekk dara takkan tax rek mo fa meuna a mo fay meuna toxda ba ca teggu nak moy sangaayal néew koo xam dafa genn aduna koku timit bu dehe ni ñi sango janaba di ko sangoo ku deretu ragalam jeex dagg ak ku deretu gësinam dog ak ku tuub dugg ci lislaam kooku tamit noonu lay sangoo léegi nag kon ñeent ya ma njëkk a wax ñëpp ci dëppoo euh, juróomeel bi rek la ñu wutee mooy sangaayal niiw ndax moom dafa war wala warut kooku nag borom xam-xam yi coow nañ ci coow yu bëri borom Laxdari nag moo tax moom mu tudd ñett ya waaye ñett yi mu tudd dugaale na beneen bi muy ñeent mu noppi ca ba ñu wuutee kon daal ñett la tudd waaye biir ñett yi déggee nañ ci ñeenteel ba su ko defee nag ba ñu wutee moom mu noppi ci moom nag lay bëgg ñëw ci nii di ko wax si moo tax mu ne yajibu dana war alxuslu sangu muy sangaayal janaba min salaasati ashiya ci ñetti yëf ñetti yëf mooy waral sangum janaba bi ci njëkk ci ñett ya al janabat mooy janaba sangum janaba de dafa war janaba nak bu fekkee nit ki da ko am dafa war a sangu ji dana la wax janaba ñaata xaaj la wal haydi ak doguk deretu regal ku yore won deretu regal bo bu doge demal sangu ji ba ke tegu won nifasi ak doguk deretu gesin deretu njurel mom bu xasse dog timit demal nga sangu ji janaba la njëkkoon a wax nak mom tax sangum janaba mi ci ngay déggaale sangum kutub ci l'islam ndax ku ne xam na ne kutub nek am mak dugg ci l'islam ku ne xam na ne sobe la fess ak tepp moo tax alquran di wax ne innamal mushrikuuna najasun heferi ay sobe lañ kon nak ba mu tuddé janaba rek sangum janaba dugalale na ci sangayal ku tuub dugg ci l'islam motax man la ñett yi la tuddu nga man caa déggee ñentel bi ba nga xam moy mooy bi mu xam wuté borom ndax dari mom dafa caa nopi ta moy sangayal ku genn aduna. janaba momu nak ñaari yefa koy waral motax mu koy wax ni fal janabatu janaba qismani ñaari xaaj la ahaduhuma kenn ci ñom ñaar khurujul mani moy genn ak maniyu bi andak banex mu'tadatin banex bo xamne buñ la fii min mu génn ci nelaw aw yaqasatin mbaa ci yeewu bi jimaaxin ci booloo ak jigéen la génne aw yi mbaa lu dul booloo mooy tëdd ba guddi gént wala nekk kuy xool ayu yoo xam ne lu bon la ci télé bi mooy nga xool loo xam ne ci ay surnoo la wala ak ya ca aju nga nekk ku sàggan ba sa mën yu génn wala nga nekk kuy foog sa bopp ba sa mën yu génn ba tey tamit yii euh, mooy mooy maanaam benneelu xaaj ba ba tey ci benn ba la nekk kon nak mu wax na ne kon liy waral sangu janaba janaba bi ci njëkk mooy mën yu mu génn mais du ne bu génnee rek war ngaa sangu de ci sarta mu génn lëkkalikoo ak bànneex kon nak ñi déggee ci ne bu génnee ci lu dul bànneex borom warta sangu mu mel ni tey ku ñu dóor ba mën yoom génn kooku kay warta sangu ndax duwut bànneex naka noonu koo xam ne dañ ko jox benn xibaar boo tàgge ko mbokkam mu ko jege mu tiit ba mën yoom génn kooku tamit du sangu wala ñu jox ko xibaar bu ko neex mu kontaan ba mën na yoom génn kooku tamit du sangu wala dañ ko dugal ci ndox mu tàng mu maanaam mën na yoom génn kooku tamit du sangu wala tey nekk na génn na ci bànneex mais bànneex ba mu génn duhut buñ baaxoo mooy tey koo xam ne dafa sàggan sol tubéy war aw fas di ko dawal ba mën na yoom génn kooku tamit li xëpp ci borom xam-xam yi nee nañ du sangu ndax génnut ci xanam ak bànneex buñ baaxoo naka noonu koo xam ne dafa yore woon benn picc picc ba nekk fu nekkul ci kaw awram men nek ci tank ya wala mu nek ci loxo ya wala mu nek ci bop ba mu koy xassan di xassan ba far mën yom genn koku timit du sangu ji ndax gennu ci xanam ak banex buñ baxo waye nak picci ba bu nekkon ci kaw awram mu xassan ko wala awram sax nekul ben picci mu nek di ca foog bopam ba man yom genn koku mom faw mu dem sangu ji kon nak duhul ne sa yu man yu genné rek borom warna sangu mais fokk mu genn ci anam ak banex jaalar bi ko timit genn ci manam banex bo xamne ne buñ baxo la waye bu génné ci lu banex borom du sangu bu génné ci banex te duhul banex buñ baxo timit borom du sangu fokk ñaar yépp deppo ja lool nak bu ñaari xasse am génn na ci banex génn ci banex buñ baxo mo xam ci nelaw la mo xam ci yewu la mo xam ci jaxasoog jigen la mo xam ci lu lolu soba timit borom war na dem sangu Nyarel ñaarel ba nak lay wax ci janaba Wasani ñaarel ba ci janaba maghibul hashafati moy fàdduk xasafa fil farji ci pey mu mun di doon dafa jël lako yalla denk nek danam tabal ko ci pey mu mun di doon moo xam da ko tabal ci peyam soxnam warna dem mu sangu ji bu sagane tabal ko ci pey mo xamne ne duhut mu soxnam gana bi mo re sangu ji fekke koka nek na ko xamne ne am jabar war nañ koo caw temeria. so su fekke nak mosoon am soxna jàllar bi ku jël lola dem def ko ci peyam jambur su boobaa mom war ko yobu ci jakka gasal ko pax dugal ko ci sànni ko ay xeer ba mu dee gannaaw bi nga xamee tamit moom sangu war na ko ba pare ca loola léegi nag su fekkee tamit da ko tàbbal ci pëyam ku dee ku sàggan fekk niiw yi ñu suul leen tabarkàlla nga dem suul leen di sëy ak ñoom kooku tamit war naa dem mu dem sangu ji waaye kooku nag mbugal mu rëy lañu war a teg ci kawam xam naa loolu fi la ñeme yàlla ak mbon mën a yem te loolu bari na fi loolu léegi su nekkee ku sàggan tamit jël la ko yàlla dénk mu tàbbal ko ci pëyam bàyyi ma moo xam nag la xar la bëy la su boobaa tamit war naa dem mu sangu ji waaye nag kooku war nañ ko def taasir imaam duñ ko dóor téeméeri yar imaam mooy seet yan yar moo jaadu ci moom ne daal nañ ko dóor juróom fukki yar wala boo àttee ñu caw ko juróom ñett fukki wala boo àttee ci moom fanweeri yar lu xam ne daal moo tollook nam ko defee rek su ko defee daan yi ko ca imaam teg rek sharia dana ko nangu kon nag li nit ki li ko yàlla dénk daal saa yu ko dugalee ci pëy bu mun di doon luy dund la luy dee la nit la bàyyi ma la lu mun di doon su boobaa kooku moom sangaay war na ko kon nag mu ngi noonu moo tax mu ne wasaani ñaareel ba maribul xasafati mooy fàddu xasafa euh, maanaam fil ji ci pëy ah, ah, su fekkee nag léegi waa ji maanaam euh, dañoo dagg zakaraam genn wàllu zakara la amee maanaam mu jël lam am lu muy tuuti tuuti tàbbal ko ci pëy mu mun doon ba tey tamit war naa dem mu sangu ji motax nak bu ko tek rek ci hasafa ji moo taxoon yonent bi dafa daan wax ne dal ñaari palaasu làkkuwaay way sa yu ñu dajé rek manam sangu mom warna kon nak sango ngi nonu di war ci lini kon nak ñaarel ba manam faddu hasafa faddu hasafa mo mu nak tay bu nit ki demoon par exemple sey ak soxnam la ko yàlla mu jox ko ko waye man ni yom ba bam ci paree rek mu dem sangu ji bim sango ba paré tok rek ni yom dor di genn koku mom dutul sangoti ndax jana ba duñ ko sangu ñaari yoon na dem rek raxas kanamam ba mu set après mu dem jàppi waaye dootul sanguwaat maanaam kon ndax bànne mën niyoo ma dafa lënkalikuutoot ak bànneex ba moo tax kon su fekkee dafa sëy ba pare mën niyoom génnut par exemple mu dem toog ba ca kanam mën niyoo ma door di génn fekk nag ba muy mën niyoo ma génn fekk sangu na dootul sangooti naka noonu tamit ki nga xam ne dafa nekk xaleel bu ndaw mësoo rëgut te nit ki bu mësoo rëgul dañuy jàpp rek amagul bànneex ab sëy bu demee sëy ak mag mu am 30 ans mu ko ëpp mu sàggan xam na wala sax mën naa nekk di jëkkëram ñu teel ko may jëkkër su boobaa tamit kooka ñoom ñaar sangu warul leen waaye sopp nañ ca ku euh, ku mag ka mu sangu waaye sangu moom warut ko bu sangutoon tamit yàqu dara naka noonu même bu doon bëccëgu weeru koor xaleel bu ndaw bu mat a gut sëy jël la ko yàlla dénk tàbbal ko ci koo xam ne nii mag la moo xam ne mat naa sëy xattaa bu doon digg bëccëgu weeru koor sax kooka jigéen googa noonu ak kooram nga yàquwut kon mu ngi noonu bu doon ñaari ndaw tamit ñi teel leen a maye mataguñoo sëy ñoom ñaar ñi ànd ba tey tamit dañu jàpp ne sëyuñu moo waral tamit maanaam ba tey sangaay warut ci ñoom ñoom ñaar ñëpp naka noonu nag su fekkoon ne tey xaleel la boo xam ne bu ndaw la matagut a sëy am fukki at wala juróom-ñetti at par exemple fukki at ak ñaar jëm noonu mësooragul ñi may ko mag mag ma dem sëy ak moom su boobaa nag moom mag ma moom dana dem sangu ji waaye xaleel ba moom sopp nañ ci moom maanaam mu sangu ndax dañu jàpp ne moom amagul bànneexam say mën a ko kon nag yii kon bala ñoo mën a xam ne def na ko mooy ñaar ñu ko mën a def def ko waaye ñaar ñu ko mënta def bu ñu ko defee rek dañu jàpp ne defuñ ko moo waral mu ne wax wasaani ñaareel ba maribul xasafati mooy fàdd fàddu xasafa fil far gi ci pëy kon nag jana baa ngoog euh, di ñaari xaaj yooyu legi nak kon dañuy arrière rek wax la kon deretu regal dana ko sax def buntu jigen bu ko yalla defé mu gis regal bobu muy gis am nañu ko gis par wer am nañu ko gis lu ko am nañu ko gis lu ko upp su ko gisé yalla dogal mu dem ba deret ja dog koku timit na dem sangu ci ni muy sangu dana la ko Jigen jigen gi nga dafa am dom euh, dom ja àndaale bi mana ak deret deret jojja bu démé ba dog rek mom timit na dem sangu ni muy sangu dana la ko jangal ba ca tegu moo doon janaba ji janaba tamit moo xam mën yu mu génn la lëkkali ko bànneex ci anam ak baax ku dal ci nelaw mbaa ci yeew kooku tamit demal nga sangu naka noonu ki nga xam ne la ko yàlla dégg jël na ko tàbbal ko ci pëyam ku mun di doon kooku tamit na dem sanguji ji na muy sangoo ñoom ñëpp dana la ko jàngal ku tuub tamit dugg ci lislaam na dem sangu ji su ko defee kon nag sangaay yooyu ki da yee benn bu ki nekk dana wax maanaam nuñ koy defee moo tax mu ne yajibu dana war alxuslu càngaay min salaasati asiya ci ñetti yëf aljanaabati janaba wal xaydeeg mbërëg mooy dogug deretu mbërëg wan nifaasi ak dogug deretu gasin yooyu dana war a sangu ak ku tuub dugg ci lislaam ak ku dee fal janaabatu janaba moomu di waral sangu xismaani ñaari xaaj la ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar xurujul mani yi mooy génn ak maniyu moo xam ne bi lazatin dafa ànd ak bànneex moo mootaadatin bànneex boo xam ne buñ baaxoo la kon bu génné ci lu duhut bànneex borom du sangu bu génné ci bànneex ta bànneex ba duhut luñ baxo borom du sangu mo xam nak dafa génné ci bànneex bobu buñ baxo bi fi naw min ci nelaw aw yaqasatin ba yeewu bi jimaayin ci bolo jigen aw xayri mbal dut bolo kom génné na ci hanam ak bànneex ci anam buñ baxo rek borom warana sangu ci nelaw ci yeewu wasaani ñaarel ba maghibul hasafati moy fàdduk hasafa fil fargi ci pey mu mundi don bu xasse am rek koku borom mom dem mu bàyyi ma la ko def ak wala bi maanaa ku dee la ko def ak ba tey waroon def mu sangu léegi nag muy jàngale mbiram gént waman raa képp koo xam ne gént na dégg nga fi mi manaamihi ciy nelawam ka annahu mu mel ni ki moom yu jaamiu mi ngi booloog jigéen walam yaxrug te génnut minhu ci moom man niyun man niyu kooku fala shay at déet dara àllihi di ko war gént ñetti xaaj la maanaam gént nga bi nga bi nga géntee bër set li nga gént nga man koo nettali waaye nag li nga mën a nettali gannaaw bi nga ko mën a nettali tamit fekk na tamit mën yu génn mën yu génn na te li nga gént te li nga gént man nga koo nettali naan soxna su mel sangam wala soxna sangam laa gént doon ànd ak mom démb ci guddi te gannaaw bi nga mën a nettali loolu tamit maanaam mën yu génn na su boobaa moom ñépp ci dëppoo war ngaa dem sangu ji ba mooy gént nga mais li nga gént mënoo koo nettali waaye lu ci mun di xam mën yu génn Kokutimit, timit li hepp ci borom xam-xam yi wo ñëw ne war nga dem sangu ji lool moy bi jumhur yep lool lañ wax ñettel ba moy gënt nga li nga gënt man nga ko netali wala li nga gënt mëno ko netali waye mom bi bër sété wala bi nga xeewoo ke nelaw ya dara xewut dara gënut koku mom ñepp ci dëppoone waroo sangu bi dara warul la ca motax nak mu raa ku gënt fi manami ci nelawam ka annahu ba mel ki mom yu jami'u mi ngi bolok jigen walam yaxruj te génnut minhu ci moom mën niyun mën niyu kooku fala shay a déet dara àll di ko war dara warut ko ca mu des nag ki nga xam ne dafa géntoon mën niyoom nekkoon ci tubéyam lu yàgg mu dem ba ay weer walla ay fan mu door di ko gis lay wax si xàtteem moom lay wax ne waman wajada ku fekk fii saw bi ci yëreem te mooy tubéyam rek wala mbubam moo xam ne moom la fanaa nooxoon mën ni yéen mën niyu yaa san bu waw laa yadri mata asaabahu kañ la ko jot su boobaa ne képp koo xam ne dangaa xëy rek gis sa tubay mën na yoo moo xam ne mu wow ma nga ca xamuloo démb la la jot xamoo barki démb xamoo kañ la sharia dafa lay wax ne seetal yére bii kañ nga mujj fanaanoog moom nga ne ah maa ngi mujj fanaanoog moom de le 10 ba le passé te tey yow yaa ci la 20 mu ne la d'abord demal nga sangu ji nga ne ko sangu naa mu ne sansel tubay ji nga soloon nga ne ko maanaam sansé naa ko mun demal nga solaat yére bu laab nga ne ko sol naa ko mu ne li ko doree ca le 10 bële ba ci la 20 li fi doxoon ci bori julli yépp li fi julli woon lépp demal nga nga fayaat ko nuñ koy fayee nag insha allah ba ñu toppee lax dëri la wax maanaam nu ñuy fayee julli yooyu nga xam ne dafa laa daboon ci ci maanaam façon boobu moo tax waman raa ku gént fi man ami ci nelawam ka annahu fa mel ki ba mel ki moom yu jaamiu ma ngay jigéen wala mu te génnut minu ci moom man mani fala shay alayhi dara waru ko ca waaye waman wajada ku fekk fi saw bii ci yére mën na ngeen mën niyu yaa bisan bu waw laa yadri te xamul mata asaabahu kañ la ko jot ixtas la na dem sangu ji wa aadamu baamu masala lam julli woon min aaxiri nawmatin ci mu ak nelaw am na ñoo xam ne dañ ne min awali nawmatin ñu ne kon ba mu njëkkee nelaw ak tubay ja la ko doree foofa ba fii lépp lay baamu ci julli lax borom lax dari ne ba mu mujjee nelaw ak tubay ja ci masala moom ci laa d'accord moom lay baamu li ko doree foofa ba fii kon ñaari wax la ci borom xam-xam yi wax loolu nag li nga ciy déggee mooy kon mu mu nekk fanano tubay jum fas julle bu boobaa warna na yu xé na xol tubay ba xam ndax dara nekkut ci bala koo ci fay boru julli yo xamee ne fay ko dana nek lo xam lu xaw metti lay dox so xey wéri sa tubay ba ca dara nekkul nak nga doora dem japp doora dem julli ci suba bo vérifié fek tubay ja manam man ni yu manqué toy wala ma nga waw nga sensé tubay ja dem sangu ji nit ñi sango janaba ba jallal bi ko nak doora julli sa ak suba gi kon nak lool bokoy def ne farlu lool dula dal rawatina tamit jamono ji nga xam ne ay puisements dafa xew néew na sax nga gis ñoo xam ne ñu man seen bopp ña ngay fanaanoo ak yére yi ñu fas yéene jullee mais dafa am yére yoo xam ne spécial moom la ñuy moom la ñuy fanaanoo bu ñu paree rek bu ñu xëyee sensé ko rek bu ko defee maanaam solaat yeneen yére loolu tamit maanaam dal xel la te tamit nekk na loo xam ne moo gën a léemtu léegi nag kon buntu boobu moom jeex na mi ngi bëgg a wax nag ci farataay sangu janaaba mii ñu waxoon nan mooy ay farataam ay farataam nu ñu koy sangoo